الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله لحلاك الأمم وخراب الدول وشقاء المجتمعات أسباب حولها نتكلم لعل فإن العبد إذا عرف السبب وصدق في العلاج يسر الله له الخروج من الحلاك إخواني في الله بقي تي الله sunu xutba tey mooy asbaabu xilaakul umam mooy sabab yi nga xam ne moo tax yàlla alak ay xeet yu fi nekkoon sabab yi tax yàlla di alak doomu aadama yi li tax doomu aadama yi di texeet yi li tax société yi di alk sabab yooyu la ñu bëgg a wax ndax amaana doomu aadama jullit su xamee feebar bu ko dal fajoom mën a yomb ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala mbokk yi ci yàlla yooyu bi ci njëkk mooy kasaratul fasad fil ard mooy yàqute gu bëri ci kaw suuf borom bi tabaraka wa taala wax ci qur'an ne wa ida aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafi mutrafa fiha fafasaquu fiha fahaqa alayhi alqawl fadammarnaha tadmiro borom bi ne su ma nammee alak ay nit su ma nammee alak benn dëkk borom alal ya borom koom ya ponkal ya ngand ya ñoom laay sabab ñu daal di jàdd borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ñu doon firil Qur'an ñu ne hawla hadhihi al-aya amarna mutra fiha bi taa'ati llahi wa tawhidihi wa tasdiqi rusulihi wa atba'ihim فيما جاءوا به ففسقوا أي خرجوا خرجوا عن ماذا عن طاعة الله borom xam-xam yi ne yàlla dafa digaloon doomu aadama yi nanu topp yàlla ñooñu nga xam ne ñooy borom alal yi li leen yàlla digaloon mooy nanu topp yàlla topp yonentam kennal yàlla dëggal yonent yi ak ñi leen toppoon waaye ñu daal di jàdd dugal ay mbiru kàccoor ay mbiru saay-saay ñu génn ci topp yàlla googu ak topp yonent yi ñu weddi yonent yi ba ñu weddee yonent yi lan moo xew fa xaqa alayha alqawlu waxu yàlla ji daal di dëggu seen kaw mbugal daal di leen tàbbi seen kaw yaru borom bi tabaraka wa taala tegu seen kaw ay ahlaknaaha ihlakan yàlla nee na ma alak leen waaye bu ñu xoolee xikma bi nga xam ne mbokk yi moo nekk ci aaya bi alxikmatu min isnaadillahi alfusq ila almutrafin duna gayrihim sekkere bi nekk ci borom bi tabaraka wa taala jël kàccoore gi ak mbirum saay-saay si ak yàqute gi teg ko ci kaw borom alal yooyu bañ koo teg ci kaw ñeneen loolu ay laaj ñu bëri moo ci nekk tasaulaat ñoo ci nekk lu tax anna alxilaaka asaaba aljami lu tax mbugal mi ñëw dal ñépp te ñenn kese ñoo ko jiite ñoo ko def waaye mbugal mi ba mu ñëwee dëkk bu yépp la daj lu waral loolu ñu ne foofu boroom xam-xam yi dañ fee tontu ñaari tontu hunaka jawaabaan al awal anna gayra al mutrafina ittaba'u al mutrifin kama qala ta'ala wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabil ñoom borom alal yooyu dañoo organiser seeni soirée organiser seeni lamb organiser seeni caaxaan woo nit ña nit ña ñëw topp leen yàlla daal leen di alak kon chaque jour borom bi tabaraka wa taala bu nammee alak ay nit ca xeet wa ñépp duñ jóg dafa ndoolu bon waaye day am ñuy organiser day am ñu jiitu ñooñu bu ñu wootee nit ña daal di bàyyi yàlla daal di toppi ñooñu gis ngeen tey réew mi nu mu mel lu waay yëkkati rek lu dul yàlla ak yonent loolu lu baax la képp ku dem topp nit ci lu bon bu ko yàlla di alag dalay alagaale ñoom ñoo dëggal loolu ñoom nit ña wuyu ji ci alquran yàlla nettali ñu ko lan lañ wax ba leen yàlla laajee lan lañ tontu ñu ne rabbana yow sunu borom ñun ñi day ñoo topp sunuy sang inna ataana saadatana ñoo topp sunuy sang wa kubaraana ak sunuy kilifa sunuy mag sunuy njiit bañ leen toppee bàyyi yàlla ak yonent ñooñu lan lañ ñu def fa adalluna sabil ñu daal ñuy sànq ci yoon bi ñu daal di réer loolu mooy tontu bu njëkk ba الجواب الثاني أن بعضهم إن أسى الله وبغى لم ينكر عليه الآخرون وقد يؤكد هذا الجواب فيما ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل أرسل الملائكة لإحلاك قرية nee na ñaareelu tontu bi ñenn ñi dañoo jóg toppi yàlla ñeneen ñi toog seen jàkka yay def lu baax daan ne ñun sunu yoon nekku ci ñeneen ñi dem mooy yàlla ba ñu seenee gaa yi topp caaxaan yi pomi ñu dégg góor jigéen ñay yóbbu ay kayit assemblée gis dëkk bi yëpp yàqu ñoom waxuñu dañoo noppi seen yoon nekku ci ñu ne ñun suñu yoon nekku ci nañu bàyyi ñi ñoom ñu alko nee na borom bi tabaraka wa taala daal di yónni malaika ca ñoom arsala al malaika li ihlaaki qariya yàlla mu ne malaaka yi dem leen ngeen alak dëkk bale fa qaalu ñoom malaaka yi ñu ne yàlla inna fiha rajulan saalihan am na benn waa ju baax ju fa nekk yàlla dëkk boobu nga wax nañu alak am na benn jaamukatu yàlla benn benn sa waay sa benn xarit mu ngi foofu qaala yàlla tontu leen ne leen bihi fabda'u dem leen ngeen tàmbali ci waaja njëkk leen koo alak moom ci boppam qaalu malaaka yi ñu ne ko yow borom bi lu waral loolu kooku baax la walima yaa rabb lu tax ñuy tàmbale ci waa ji lu tax qaala li anna wajhahu lam yataxayyar iza raa munkaran dafa gis ñu may tooñ mu gis lu bon yàlla waxul waa ji terewul de dafa ne kanamam soppeekuwul merul ci loolu kon ñun fan lañ jëm tey fii ci Sénégal kan moo gisul lu bon ku ci sa bët teguwul ci ñun ñi julli si jumaa tey kan moo ko déggul ci noppam kan la mbir yi du xew ci biir këram ci buntu këram ci koñam ci mbedd mi ci dëkk bi kan ci ñun ixwaani li hadihi al umma allati shahida allahu biha bil xayriya xam ngeen xeet wi yàlla da leen a seedeel ak mbaax yàlla ne ne xeet wi xeet bu baax lañ waaye illatu xayriyatiha illa gi nga xam ne moom la yàlla wax ne ñun dañoo baax lu ko waral mooy al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar kuntum xayra umma uxrijat linnas limaza taamuruna bil maaruf yàlla nee na yéen ñu baax ngeen lu tax parce que da ngeen di digle lu baax di tere lu bon léegi nag illa googu moom la ñu bàyyi ñun kenn ci ñun dootul digle lu baax dootul tere lu bon koo wax rek mu ne non vie privée la quoi vie privée la man damay maandu ci si lu sama yoon nekkul kenn du kenn du wax wala ñu ne mesure na mesure nañ ah lu leen neex def duma fàtte mukk bis bi ab xale bu jigéen doon muuru ba ci yàgg rek am lu ko dab mu dem église bi nekk parcelle daal di murtat nekk catholique xabaar yi di tasaaroo ba ñu jot ci ñu sol sunu dàll dem seen kër dajeeg yaayam dajeeg papaam ana lan la ma papaam tontu mesure naa lu ko neex def mesure na du ma fàtte wax jooju ba tey الرسول صلى الله عليه وسلم أسار النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي حصل في آخر الزمان ينتبه مثالا نونو يليد خو مجنتلو جمانو من كيف بكم إذا لم تعروا تعمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر naka ngeen di xëyee naka ngeen di nekkee bis bu ngeen demee ba digleetu leen lu baax tereetu leen lu bon waaw kayfa ndeysaan saxaaba yi ñoom yonent bee leen yar ñu baax lañ yàlla leen tànn ñu ànd ak yonent bi am na yu leen yonent bi doon wax day nekk ci ñoom ay gént qaalu awa kaainun zalika ya rasul allah yonent danañ dem jamono ba nit di ges lu bon du ko tere nit xëy këram du digal lu baax dinañ dem jamono boobu awa kaainun zalika ya rasul allah ndax loolu dina nekk qaala yonent bi ne leen aw ashaddu minhu sa yakun lu raw loolu dina am lu raw loolu lu raw loolu gis lu bon doo ko dindi waaye di digle lu bon bàyyi lu baax lu raw loolu nga am mbokk yi ndax amu leen ay mbër yu jigéen mbër ak ni mu araamee ak ni mu bonee góor sax baaxul ci moom waxuma la ak ay jigéen di ko def xoolal góor jigéen bu nit ay nit ñemee ne dañuy yóbbu këyit assemblée pour ñu signer leen xool leen dëkk bi démb xool leen tey xool leen mbedd mi xool leen xale yu góor yi seen tube yi xool leen jigéen ñi amatul jigéen buy waddu ci réew mi mu ne awa saddu minhu sa yakun lu raw loolu dina am qaalu wa ma asaddu minhu lan moo raw loolu yonent qaala kayfa bikum ida amartum bilmunkar wa nahaytum an ilmaaruf bu ngeen demee bay digle lu bon di tere lu baax tey fu mu toll kan mooy tere tey lu bon ci réew mi ñépp lu bon la ñuy digle xoolal rajo yi lu bon rek dañuy digle njabar di digle ay xërëm di digle lu kenn xamul lu bon rek lu baax kenn lu rus na kaa wax tey lu baax xoolal keroog benn ci mbër yu jigéen yooyu ba muy bëre ji jëkkër jee ko yóbbu bi sahaza jëkkër kayfa bikum ida amartum bilmunkar wa nahaytum an ilmaaruf qaalu awa kainun zalika ya rasul allah xoolal yonent bi day wax sahaaba yi yéemu di laaj naan ndax loolu dina am yow yonent qaala wa ashaddu minhu lu ko raw sa yakun lu ko raw dina am qaalu wa ma ashaddu minhu lan moo raw loolu qaala kayfa bikum ida asbaha almaarufu munkar wal munkar maaruf bu ngeen demee ba lu baax ndeysaan xëy nekk lu bon lu baax mooy lu bon misaal rek xoolal joxante loxo góor ak jigéen tey ci Sénégal joxante loxo góor ak jigéen lu baax la wala lu bon la lu bon la ci yàlla lu bon ci yonent bi lu bon ci islaam waaye ci Sénégal maaruf maa fihi muskila ku ko deful sax yow yow yaay ku bon ki kon kay yonent bi wax na dëgg sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ngeen xëy nekk ci lu bon kenn dootul digle lu baax waaye lu ngeen di def mooy di digle lu bon di tere lu baax ku bëgg a baax ñu xañ la mbaax xoolal tey ku bëgg a bon léegi ñu financé la ku bëgg a bon fi ak ngoon ñu financé la ku bëggoon def léegi benn soirée ci stade bi bëgg fee indi ñu bon ñi léegi balaa ngoon lépp yomb waaye boo bëggoon def lu baax ñu ne da ngay ñaani autorisation ixwaani tabaddalu alqiyam axtaru sheyun yusibu l umma al islamia al yawm valeurs yi la ñu changé jikko yi nattukaay yi la ñu wëlbati fi l'islam doon natte fi yàlla doon wax ne lii la loolu la ñu wëlbati والقيم المادية تصبح قيما محترما alal tey lañ respecté alal alal alal nu waay def pour am alal rek xoolal carte gi message yi xoolal message u carte yi boo yónnee 5 SMS nangam SMS yooyu ku ko yónnee yaa ngi ci carte xoolal ni mu bëree ci réew mi te doo dégg ku wax xoolal mon gi nu mu bëree doo dégg ku wax xoolal al bëre bëre ni mu araamee ni mu ñaawee ni mu bone xoolal alal rek alal kenn ku nekk ci ñun yaa ngi xaar sa doom am alal yaa ngi xaar sa mbokk am alal góor jigéen la sa yoon nekk ci kilifa diine bi moom mu ngi fale toog di xaar rek am ay jàng waa ji indil ko saaku ceeb moo tax du ko wax ne li nga nekk dafa xaram bugguma alal bi baaxul déedéet moom day noppi parce que xaalis baa ngi ñëw ixwaan yi nattukaay yi la ñu soppi ñu jël alal teg ci kaw daal di yàq jikko yi xale bu jigéen bii jaay boppam sax benn chauffeur taxi moom ma ko nettali mu ne ma benn xale bu jigéen buy jaay boppam ci quartier dafa jëndal yaayam portable su doxee ba fajar day woo yaay ji ne ko maa ngi jege buntu kër gi jógal ubbi pour waa koñ bi bañ a yëg suy dem jaay boppam ngoon gi day ànd ak yaay ji ci taxi bi ba taxi bi génn koñ bi pour ñu ne ñoom ñaar ñoo ànd yaay ji wàcc ñibbisi moom mu continuer foofu lañ tollu tey ñun waa réew mi. jikko yi lañu yàq soppi nattukaay yi yal na yàlla yërëm Omar ibnul Xattaab moom mi tëjoon benn waay bu wax benn woy rek Omar tëj ko ne ko yow bànni nga saay-saay nga suñ la bàq bàyyee ci société bi nga yàq ko Omar bu ñëwaatoon fii tey dina tëj ñu bëri ñu bëri lan la waa ji waxoon ba Omar tëj ko ne ko yow bàndi nga dail makaarima la tarxal li bugyatiha uqud fa innaka anta taamiu lkaasi Omar nee na yow miy joxe lekk ak naan jarul ngay def lu baax ndax yow sang nga Omar ne kii bandi la tëj leen ko waa ji loolu rek la wax Omar tëj ko benn way la way Omar tëj ko ñun nag ñaata waykat ñaata animateur ñaata ñaata ñi gën a bon ci réew mi ñoom lañ jox antenne yi ñu nekk ci réew mi ñooy jiite wa jaa fi l asar ayuha al ahbab قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم صنفان إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد سائر الناس الأمراء والفقهاء أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ñaari nit ci xeet ci société suñu baaxee nit ña baax suñu bonee nit ña bon ñaari nit ñaari groupe ñaari mbooloo ci biir xeet suñu baaxee nit ña baax suñu bonee nit ña bon nattukaay baa ngi nii de yonent bee ko wax ñu ne ko ñan mu ne al ulama borom xam-xam ya njiitu diine ya wal umara ak ñiy jiite adduna bi mu ne wa haulaai wa ulaika hum ulul amri ñii ak ñela ñépp ku ci nekk ñoo yore mbir yi ñii ñooy jiite adduna bi ñii ñooy jiite diine ji kenn ku nekk li la war ci ñoom ñaar mooy xirs alal istiqaama kenn ku nekk da ngaa waroon xër pour nit ñi baax ñu jiite diina ji dañoo waroon sàmm diina ji mu jub ñu jiite dëkk bi sàmm dëkk bi jub waaye xoolal dëkk boo xam ne dañu ne mën ngaa fen doo am bàkkaar fi mu nekk ni semi depuis le premier ba tey nit ñaa ngi fen rek koo wax ñu ne amul problème poisson d'avril la fu dëkk boobu jëm ci ay jullit yu ñu tere fen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na boo nee sa doom demal nga ñëw ma jox la mu dem ñëwoo mu dem ñëw joxoo ko yonent bi nee na yow fenkat nga kon li waroon ñooñu mooy istiqaama ñu fexe nit ñi ñu jub ala amrillahi ci ndigalu yàlla tabaraka wa taala ñi jiite xam-xam bi ñi jiite dëkk bi te loolu lu amoon démb la borom xam-xam yi doon jiite di jubal di jub di jubal jàng ngeen histoire imaamu Ahmed imaamu ahlu sunna wal jamaa ci natt gi ko yàlla tegoon ba ñu tëj ko kaso tëj ko tëj bu metti boole ko ceeg mbugal yu metti di ko dóor guddeeg bëccëg am taalibeem bu tudd Abu Saïd ñëw ci moom benn bis ne ko fekk yërëm na ko mu ne ko yaa imaam qul haa allahu akbar imaam waxal wax ji li nit ñëpp wax am jàmm wax ko nga am jàmm ay waafiq al maamun nangul li buur bi wax nangul li gouverneur bi wax fa inna laka iyaal am nga njaboot xoolal sa njaboot bu lor sa bopp bu lor sa waa kër tey loolu la ñuy wax borom xam-xam yi yaa jiite mbooloo mi xoolal mbooloo mi xoolal mbooloo mi allahu akbar loolu la abu saïd wax imam ahmad ne ko bul lor sa bopp jaru ko ndax am nga njaboot boo fi deewee sa njaboot kenn du ko dundal loolu lañ lay wax xoolal mbooloo mi waaw xoolal milliards yi xoolal compte yi xoolal passeport diplomate yi xoolal loolu nga nar a xañ sa bopp ndax benn signature ixwaani ñun ñëpp déglu leen lu imam tontu abu saïd mu ne ko abu saïd mu ne ko ah mu ne ko unzur min asuraf xoolal bën bën bële jógal nga taxaw nga xool bën bën bi abu saïd ñëw jóg taxaw dox ba ci bën bën bi taxaw xool fa nazara abu saïd fa wajada xalqan kasiran kulluhum amsaka waraqa wa qalaman yuridu an yaktuba ma sa yaquluhu l imam mu seen mbooloo mu bari ñëpp a ngi toog ku nekk a ngi yor big ci loxo ndey jooram mu ngi yor këyit ci loxo càmmoñam muy xaar imaam wax mu bind lu mu nar a dund àdduna ak alaxira abu saïd xool mbooloo mi daal di dellusiwaat ci imaam ahmad mu ne ko loo gis mu ne ko mbooloo mu takku mu ne ko lu ñuy def ne ku nekk ngi yor këyit ak xalima di xaar nga wax mu bind mu ne ko wallahi ma yakunu lii an anju bi nafsi wa adilla haula ndeysaan imam ahmad abu saïd léegi da ngaa bëgg man ma rëccal sama bopp ma alag ñi topp ma yëpp ñi ñëpp ma alag leen man ma rëccal sama bopp ma alag ñi loolu nga bëgg allahu akbar maa yakunu li al anju bi nafsi warumaa rëccal sama bopp wa udilla haula ma réeral ñii léegi ñun lan moo am fii tey mooy kilifa diina gi dañ koy jox passeport diplomate utal ko ay pasero utal ko ceeb ndax jàng yi ak ziyaar yi ak nangam yi mu alak xeet bi yëpp ñëpp alku du wax dëgg du leen digal lu baax ñëpp dem safara wax lañ tollu tey imam ahmad moom loolu la bañoon mu ne ñii ñëpp man la ñuy xaar ma wax dëgg ñu dund ko waaw bu ma ragalee ma amun ragaluma yàlla ma wax leneen ma musal sama bopp ma alag leen ixwaan yi foofu la ñu toll tey imaam ahmad moom muccoon na ci loolu rahimahullah ñoom ñëpp yal na leen yàlla yërëm la qarsaanul ilma fa rafaahum allahu makaanan aliyan ragaloon nañu yàlla ñoom boroom xam-xam ya ñu aar xam-xam yàlla yëkkati leen ba ci kaw wa kaanu hudaatan muhtadin nekkoon nañ ñu jub tey jubal ku leen xooloon rek jub waaye xoolal tey ñu ngi nettali al imam abu xanifa rahimahullah moom tamit ca jamonoy nattoom yaayam moo ñëw ci moom ne ko abu xanifa tëj biñ la tëj yàgg na yaa nu'maan inna ilman ma afaadaka xayrun wa darbi li taxqiqi an tazhada fihi yow imaam lii kat xam-xam jaru ko ñu lay dóor di la tëj lii lu ko fi jar xanaa munoo bàyyi lii nga dem toogi yaayam moo ko wax fa qaala laha wallahi ya umma law aradtu bihi dunya la wajadtuha walakin aradtu an asuna al ilma yaay mbir mi bu doon àdduna kese laa ci bëgg maam àdduna bu doon ay oto rek ay hectare ay tool ay kër yu nekk tefesu géej ay jongoma laa ci bëgg ay milliards wallahi la wajadtuha walakin ya umma aradtu an asuna al ilma dama bëgg a aar xam-xam dama bëgg aar diine dama bëgg a aar aqida pas-pas dama bëgg a aar tawxid ana Sénégal ñuy aar diine ana ñuy aar aqida ana ñuy aar tawxid ana ñu ana ñu ana ñuy aar ba réew mi du ñu xëj signé fi kayit pour góor jigéen kenn dutu ko fi tëjit ana ñu ana ñu alaysa hunaka rajulun rashid loolu alquran doon wax xanaa mu fi ko jub 95 pour cent musulmans yi ñuy wax ana ñu waa mbokk yi yéen bu ñu yokkee ceeb ñëpp dégg leen bu ñu yokkee mburu ñëpp dégg leen bu soow manqué suukar manqué ñëpp dégg leen bu ñuy toroxal diine ñëpp noppi benn xale papaam da ko doon jàngal ne ko ibnayya inna min arrijaali la bahima fi surati arrajuli samii almubsiri fatinun bi kulli musibatin fi diinihi waaye wa isa usiba bi diinihi lam yashudi doom am na ci nit ñi ñoo xam ne ñoo xar yi ak béy yi ñoo yem inna min arrijaali mu ne ko ah mu ne ko la bahima am na ci góor ñi ñoo xam ne ñoo xar yee yem ak rabu àll yi mu ne ko bàyyi lu ko waral mu ne ko ñooñu dañoo muus ba seen alal ci àdduna aar nan alal ji dara du ko laal ci lu bon kër yi def nañ ci ay porte weñ fenêtre yi ay giri weñ miir yi def nañ ci ay xottu butéel buntu kër gi teg nañ fa gardien teg fa xaj loolu yëpp pour lan la pour bu benn saay-saay ñëw dugg ci kër gi yàq fa dara wala jël fa dara loolu àdduna la kër yëpp dañ leen di aar yenn saay sax nga dem ci benn kër mu am fukki gardien ñaar ci kanam ñaar ci ginnaaw ñaar ci biir allahu akbar pour kër gi rek bu fa saay-saay dugg ana ñuy aar diine ji ana ñooñu yàlla doon wax rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi yal na yàlla yërëm borom xam-xam bi wax ne su ma gisee lu bon te mënuma ko dindi su ma demee toilette di tuur ndox deret laay saw mu ne iza raaytul munkara su ma gisee lu bon falan astatiu an ughayiraha te mënuma koy dindi mu ne abulu daman deret laay saw deret ñooñu foofu lañ tolloon ñun nag ñun fan lañ toll tey mooy lu nu dégg rek sëgg lu nu dégg rek noppi lépp lu ñu jël lu bon teg ci kaw xeet bi gis ngeen robinet bu ubbeekoo su géej gi màmmee di ñëw kenn ku nekk ci ñun yor peel taxaw buntu këram naan ndox mi di dugg sama kër di jël di jël ay birig jël ay saaku di aar sa kër su ndox mi rombee ba dem ba dem ci kër yi bu kër yi feesee ba pare sa kër day dugg da ngay aar buntu kër gi ndox mi jaar ci ginnaaw kër gi dugg bu kër dëkkandoo bi feesee sa kër day fees dañoo war a dem ba robinet ba ba téwo bi fu mu bënnee ñu fatt téwo bi loolu mooy lu bon li nañ dem ba fa mu nekk ñu tëj ko bu ko fa kenn xalaat gis ngeen problème góor jigéen yi réglé nañ ko ba pare Europe dafa réglé wu ba pare Afrique moo des te dañu ne président Afrique yépp nañu ànd signé góor jigéen ci Afrique bu ko kenn tëjati yal na yàlla jàppale yaayaa jàmme li mu wax tey mooy góor ak góor jigéen ak jigéen ku ko def gàmbi dalay rey waaye yal nañu yàlla may président yu mel noonu waaye allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaai wa arina albatila batilan warzuqna ala jtinaabi allahuma ya musabitu alqulub sabit qulubana ala taatik اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله